bismillahi arrahmani irrahim aousubillahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa inniya uizuha bika wa zuriyataha min alsheytaani irrajim rabbi aousu bika min amajati shayatin wa aousu bika rabbi an yahduruni wasalaatu wasalaamu ala xayril anbiyaai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman wa baxdu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi dellu siwaat seen jataay yi ñu tuddee 18 safar di ko am ak euh, groupe GCB ci ànd ak abo madiana Sohaybu Baay assan Mesere ak wa jataay bi ñëpp di jaajëfal ñëpp di jaajëfal bu baax a baax maam Cerno ci yëkkati gu am solo gi am na solo lool ci xaside yi euh, nag ñu fas yéene wéyale fi nu nekkoon ci diggante yont bi ak sëriñ Touba xaadimal Moustapha ndax bu nu indee foofu mooy dañu ñëwoon ba junj ci diggante bi ci li muy wax ci diggante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon foofu day ubbi buntub xasida yi buntub xasida yooyu nag nga xam ni ci laa waxee woon ci ni euh, tagg gi muy tagg yont bi sallallahu alayhi wasallam ci la jéggee Kaab ak Xasaan nga xool ni Sëñ Tuubaa ni muy taggee ak ni muy bindee ci yont bi sallallahu alayhi wuute nag ña doon tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nan daan bindee ci moom ndax moo tax wa maam ma daxtu kanu balaa yi kon Sëñ Tuubaa ay tàggam dafa wuute ci saa su nekk boo ko nattee ci wàllu gu nekk rek ci ni muy waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wuuteeg la nga daan dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga gis ni xeetu wayin wu nekk way na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu junjee woon ni dina wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wax ci bindam boo xoolee ci jikko jooju rek muy wax xasida googu mu tënkee wa innaka la ala xuluqin azim muy wa chiqtu bi rabbil arshi jil juudi wal afwi ma al mustafa wallahu li saf safwi nga xool xasida googu ci araf bu nekk maanaam fukki araf la ak ñaar araf wu nekk mu def ko fukki buntu ak ñaar nga xam ni baat bu mu tàmbalee bu nekk moom lay jeexale nga xam ni xasida gu lu yéeme la goo xam ni Sëñ Tuubaa nee bi mu koy bind ci jamonoy tukki bi tàkkusaan gi nga xam ni timis gi nga xam ni moo dëkkmal guddi gàmm bi waxtu timis bi di jot neen la yonent bi salaatu wasalaam ni cëpp ni ko tey man ak yow ñooy gàmmoondoo keroog neen suñ tubaa amul woon euh, xali euh, këyit yoo xam ni moom la war a taggee benn saatu la yoroon jaay saatu ga daat koy jëndee ay ki daa Euh, bi loolu amee nag mu ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa ndax li mu ni ko tey mag yow ñooy gàmmandoo loolu nag ku nekk xam na ni do xaraaba foofu buñ fa duggee mën nañ faa yàgg bi mu indee big maanaam commencé waxtu wi commencé dugg muy bind tàmbale ci araf wu njëkk wa tënkee wa shiqt bi rabbil arshi jil juudi wal afwi ma al mustafa wallahu li muxlidun safi ci lay continuer wax ci lam bëgg wax ci bayit yonte bi sallallahu tagg ko ci ay bayit tagg ko ci ay jikko tagg ko ci ay melokaan ba nga xam ni xasida gaa ngay gaa ngay daanu foofu li ma bëgg a profité dugg mooy ca la lisaanu xaal waxee ak cheikhul xadim ayaa xaadimal moxtaari laa tansa sahbahu fa man yansahum fal matu matul muqattong yow mi nga xam ni yaa ngi tagg yonte bi sallallahu alayhi képp kuy tagg yonte bi sallallahu alayhi wa saxaaba ya dafa mel ni sa tagg googu day manqué fal ma fa mat fal matu matul muqattong ca la jël Euh, bayit ba ca topp ni abou bakrin siddiqu zu sidqi wal wafa rafiqu nabil moustapha xaara an baw abou bakrin siddiq la jël ca bayit wu njëkk wa ca di ko ci tagg di wax ni mooy borom dëggal ga waaye mooy ka mataloon ga waaye mooy ka nga xam ni moo wéttali woon yonte bi sallallahu alayhi wa ca xunt ma moom abou bakrin siddiq di borom maqama di borom martaba nga xam ni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon bu nu jëloon ngëmu abou bakrin siddiq teg ko ci balance jël ngëmug mbindeef yëpp teg ko ci balance ngëmug Abubakrin Sadiq dana ko dana leen euh, dana ko daaneel ca daaneel goo xam ni dana gàccaloo sax ca ña ko doon peese muy Abubakrin Sadiq doon ki nga xam ni moo wéttali woon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam saani yasnayni ni huma fil gaari iz qaala li saahibi la tahzan inna allaha maana kooku muy Abubakrin Siddiq mu njëkkee ci moom mu teg ca ba ca topp ni aboubacrin siddiq zu sidq wal wafa rafiqu nabil mustafa xaara an bahu mu teg ci abo xafsinil faruqi sarwaahu naadirun bi stazadinu mustafa is yu zahzihu kooku mooy seydina omar ibnul xataab moom la ci teg ca euh, ba mu tabbee ci sahaaba ya mu doon ki nga xam ni mooy ko dëggal mooy ki nga xam ni moo taqale dëgg ak neen moom la Sëriñ Tuubaa di leeral ci raaya naan keroog ba mu tàbbee ci diine keroog malaaka yi bëgg dégg nan ba yonente bi alayhi salaatu bégale seydna omar daan ni ko mualliman anna islaaman fata omarin busra li ahli shama wal kullu yaxtaaru dugg gi seydna omar dugg ci islaam tey jii doon na mbégte ci waa asamaan waaye doon na mbégte ci képp koo xam ne tànneef nga moom seydna omar moom moom mooy baayu xafsa xafsa moom nga xam ni kenn la woon ci soxna yi yonante bi alayhi salaatu wasalaam seydina abou bakrin siddiq wala seydina omar moo doonoon euh, borom këram moo tax mu tàmbalee ko ci aboo xafsinil faaruqu sarwaahu naadirun kon ku mel ni Seydina Omar moomu amul kenn la woon ci xeet wi nga xam ni ci maqaamam ci darajaam ci dëggu li ko yàlla may taxoon na bunt bu mu a tàbbi saytaane du fa jaar moom Seydina Omar loolu jagle la woon moom Seydina Omar ñu mënoon a wax lu bari ci moom waaye ñu mën a wéyaat ci ki nga xam ni moom la indi ci ñetteelu saxaaba yooyu muy aboo xafsinil faaruqi sarwaaxu naa dum bi sax dinu mustafa isu sax kon ki ci topp mooy kan afi sax bi man daxab na afaana zalxaya lahu nuuru suma nuuru nihmal mu bawiw kooku mooy kan muy Seydina Ousmane mooy ki nga xam ni mooy borom kersa ga moom Seydina Ousmane doon na jëmm joo xam ne rusoon naa téen sax xool asamaan moom Seydina Ousmane doon na jëmm joo xam ni euh, lu yéeme la ko daloon nga xam ni tëj nañ ko ci këram ñeent fukki fan yoo xam ne lekk duggul lekk naanul ba keroog ñuy jël bakkanam mu doon borom kersa doon koo xam ni tey jii li mu financé ci islaam ak lim ci def ci alalam moo tax lii rek junj la ci loolu ci diggante shukru ak xamdu kon shukru dañ koy defee ci doole doole lañ koy defee ci alal waaye alhamdu moom ci hamdu moom bu dee hamdu baata koy wax kon gis nga si Seydina Ousmane doonoon koo xam ne jàmbaar la ci loolu waaye nag mooy Euh, moo moo denc ñaari doom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muy Ruqayya ak Ummu Kalsum nga xam ni kii faatu na yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ki ci des daan ni ko bu ma amoon kaneen dolli la loolu moo indi loolu moo indi ab euh, moo indi abu xafsini moo indi afi sax man man daxab na afan salxaya zalxaya googu loolu moo ko indi lahu nooru suma nooru laa bëgg a wax lahu nooru suma nooru nixmal mu bayu kon borom ñaari leer yi ñaari leer yonte bi alayhi salaatu wasalaam mooy li ma leeral léegi loolu moo indi borom ñaari leer yi waaye mu tëjee ko seydina aliyun ibnu alxataab wala aliyun ibnu abi talib moom la indi ci bayit ba ginnaaw ba mu daale daanale ci abu xasanil faaruqi ginnaaw ba mu daanale afi sax bi man da xam na xafaana zal xaya lahu nuuru suma nuur nixmal kon ko tegu mooy kan abu sibtayil muxtaari wa huwa ibnu ammihi aliyun ala faxtira nixmal mu jarriyu kon kooku mooy Seydina Ali moom mi nga xam ne mooy bàyyi Ousseynou ak nga xam ni Assane ay mag Ousseynou mooy rakk ji ñaar ñooñu Seydina Ali mooy seen wayjur wu góor waaye soxna faatimatu Dahra mu yonent bi salaatu wasalaam mooy seen wayjur wu jigéen kon nga xam ni moom mooy boroom ñaari euh, euh, seex yooyu ñuy seexale nga xam ni ay mag ak lan nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg ndaw ñi nga xam ne ñooy dugg àjjana ñoom ñooñu ñooy seen sang muy Ousseynou ak Assane moo tax bi mu jeexalee ci loolu nag jël bayit boo xam ni dafa indaale euh, maasale ñi des ci saxaaba yëpp te tudd leen kon mu am amda foofu lay indi indi qualité yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi li mu doon ci maqaama indi li mu doon ci jikko noonu la xasida googu wéyee wax naa ko ci biir ci bi muy wax ni yonent bi salaatu wasalaam jëmm ji nga xam ni moom la yàlla defoon ci moom mu doon ku nooy bu nooy jotee mu nooy bu dëgër jotee mu dëgër moom yonte bi alayhi salaatu wasalaam kiltaa yadayhi lahaa nam koy waxee ci fële kiltaa yadayhi lahaa saxyun tulaazimuhu baslun wa baxshun li man laanu wa man jaaru kon gis nga bu nooy jotee mu nooy waaye nag bu dëgër jotee mu dëgër ci ki muy nooyal mooy kan ki nekk ci dëgg ki muy dëgëral mooy kan ki nekkul ci dëgg mooy ki jalgati moom yonte bi alayhi salaatu wasalaam loolu yëpp ci xeetu maanu la boo demee ci mu am daax loolu lay jàngale nga dem ci xasida gi ci topp muy jësbul xulóob mu doon xasida goo xam ni wax na ci juddug yonent bi alayhi salaatu li ci ëpp solo la ca wax ci juddu la ca xew ak la nga xam ni moom la maqaama moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam lamboo kon boo demee ci jës bu da nga cey fekk loolu kon loolu day dëggal ni mu waxoon ni dana xaata banteeg ci wax ci yonent bi sallallahu ci bindam ak ci jëmmam maanaam ci bindam ak ci ay melokaanam nga xam ni xasida gu am solo la ci xasida tagg yi la bokk moom muxaddimaatul am daax ak mawaahibu mawaahibu nag li ci gën a yéeme mooy sëñ Tuubaa da ko bind ci lu ñu tuddee xasal mooy day tagg te ki muy tagg du indi tuur wi te bayit bu mu jël nga xam ni kii ko moom loolu mooy kéemaan gi nga xam ni moo feeñ ci xasida yi xasida ak mawaahibu nga xam ni bu fekkoon dañuy wër mbind moomu dana jafe lool nga gis ku masa taggee noonu yonte bi sala luy néew lay doon nga xam ni kenn rek lan wax ni xasidaam mas naa nduru noonu ca ña jiitu woon waaye bu weesoo loolu mosoo cee dégg lenn kon mu doon xeetu daajin woo xam ni tagg na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan orma gi sunu borom jox yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba nga xam ni tudd ko ci alquran ci jaar ci tur wi nga xam ni moom la ñuy ŋawti ŋawtee ni ci ëppti ñàkk xam yonent bi alayhi salaatu wa salaam Muhammad la wax wala yonent bi alayhi wa salaam waaye tur dëgg. ñu defaru dëgg duñ jaar ci loolu nduru ku ko sàllalu ndax alquran indiwu ko yàlla fu mu indee tur rek dafa am lu mu doon leeral wala lu muy wax waaye amul fenn fu mu indee yaa Muhammad wala e Muhammad yooyu kon dafa jara bàyyi xel ci kaw noonu nag la doon taggee yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasida ak mawaahibu sant na sunu borom subhanahu wa bàkk ko nga xam ni bismil ilahi yan muulahaay bila manaahi walanti haay hamdan li rabbi xayri mu rabbi xadrama xal bilihtidaay nga xool bayit yooyu may wax boo déggee mu naan samsu sumoo si rashru aussi xayrul si li law li yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jant-jant yi jant bii di leeral taxul ñuy wax ñi gën a kawe ci daraja ban leen di misaale ci jant yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen di may lumière mooy samsu sumoo si waaye njiit yi nga xam ni ñoo ëpp daraja ci walli yi wala ci gaayu baax yi wala ci yonent yi yonent bi sallallahu sallam mooy gën ci ñoom rashru aussi mooy njiital kooku waaye mooy njiitu képp ku nu joxoñ ban yaa nga ca kaw waaye xayrul anis yi bu nu waxee xayrul anis moo gën ci mbindeef yi mbindeef yi ñi nga xam ne ñooy tànneefu sunu borom subhanahu wa la ak kun ci manti am rek ci daray daraja yonte bi sallallahu alayhi wa sax ci lan la tànnee kon xayrul anis yi li law li laay yi yaay li law li yaay waaye noonu muy indee bayit yooyu ci biir ci di ci tagg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ciy taggee saxaaba itam te du ci indi seeni tur ala sahaba jawil ijaba yowmal kaaba rida sanaay gis nga ba muy wax sax ca badar nan ci duggee woon waxul sax ci cadre xare ak jami jaase ki door waaye danaan euh, niiloo wanaaloo waxtalanaay niiloo wanaaloo am nañ ca gaaya gaaya am ci ñoom ndax xare badar ku nekk xam na nam deme woon waaye Mawaahibu li muy tënk-tënk indil na la ay histoire yoo xam ni dafa xew ci biir badar li li li ñuy wax ni nag ci zahiru mbind mi la ñuy wax waaye mbóot ya nga xam ne da cee ñu nga xam ni borom moo ko waxal boppam looloo waral ñuy jàng xasida yi ndax xasida yi nee naa leen mbóot la moo xam ni dafa jóge ci biir alquran ki nga xam ne dafa jógoon liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala muy cheikhuna ahmadul xadim ngànnaay gi mu yoroon doon ko demee nga xam ne moo ko may doole yépp mu am loolu mooy xasida yi ila tawaali fii yaqudullahu asrara la ilaha illallah nee na suñu borom jël na mbóotum laa ilaha illallah wammat ko tàbbat ko ci tàbbal ko ci biir xasidaam yi jakatab tuf ta jaarsul baaxi wa sabahat malaikuti baaxi nee na xasida yi moo doon la nga xam ni nee na saa su ma tàmbalee di bind saa su ma tàmbalee bind di bind aras jaayu kursi yu jaayu maraaka yi commencé sabbal loolu sunu borom moo ko may subhanahu wa taala kon gis nga kawe googu xasida yi kawe nga xam ni amul kenn koo xam ni ku defaru nga wala ku baax nga te bu ñu yëkkatee xasida yi sab xol du yëngu ndax Sëñ Tuubaa nee xasida yi buñ koy jàng day yëngal xolub gaa yu baax yi ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam kon dafa am mbóot moo xam ni moom moo laxasu ci biir xasida yi xasida yooyu nag moom bum ci manti doon rek boo ci accès dafay mel ni boobu rek mooy liy saf lépp ndax wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mu taalihin li wajhi rabbi suñ tubaa mu ngi wax ni suñu boroom defal mbóot ci sama xaside gi nga xam ne day yar képp koo xam ni mu ngi koy jàng ngir jëmmi suñu boroom subhanahu wa taala kon xasida yi kawe na kawe goo xam ni dana am loo ci mën a leeral ak loo xam ni mënoo ko cee leeral ak loo xam ni sax nag far xamuñu ko ci kon lu am solo la ci cadre xasida yooyu nga wéy ba léegi ci wàllu googu ci diggante xasida yi ak Sëñ Tuubaa ni mu ko bindee ak lenn li nga xam ne moom la ko indi ci li tax ñu war a mën a fonk xasida yi nee naa la ñaar rek la composé ba ñett ba ñeent moom xasida yi muy day taggu tagg lay làmboo ak sant ak julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moom xasida yi kon tagga ngi ci santa ngi ci waaye julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci ak mbootum mi nga xam ni borom la ci moo ci liggéeyal sunu borom subhanahu wa taala ba sunu borom may ko ci loo xam ni may ko ci kenn moom xasida yi Cheikhuna Ahmadul Xadim yi mu bind kon kawe gi kawe na kawe goo xam ni li ci ëpp solo mooy nan koy jàng comme ni mu ko waxee li wax ci rab bi li wax ci rab bi amul nag lu mu munul moom xasida amul xasida lu mu xanaa ñàkk jàpp xasida yi ak ñàkk koo sellal waaye xasida gu ci nekk ak jagle gam ca wax xasida gu ci nekk nag ak lam ca wax boo dégloo ci biir waxtaanu sëriñ Basiru xel koom nee na ñëw na ci sëriñ Saalix ni ko xasida yi de bari na lool te lépp laa am yéene jàng ko ma bëggoon nag nga jox ma ci ndigal goo xam ni saa bu ma ko jàngee danaa yóbbaale xasida yëpp mu daal ni tekk ba mu yàgg daal ni ko xasida googu de ñuy wax jaalibatul maraaxi bi di xasida googu ñuy wax jaalibatul maraaxi bi nee na ko am na ca lu war a tolloog ñaar fukki bayit yoo xam ni borom moo ca waxal boppam ku koy jàng kon ni ko del jàng xasida googu muy xasida euh, jaalibatul maraaxi bi xasida gu yéeme la ndax xasida la goo xam ni sax ku am ku të boo koy jàng di ko ëf ci ndox di ko jox mu naan dana xëy tegu ci yoon mu neex ko mu naqari ko moom xasida googu euh, kon ci wàllu diggante googu rek kon nan yam foofu ci jataayu tey bi xam naa incha allahu rabbi jataay yii di ñëw nag mooy euh, jataay yi nga xam ni moom la ñuy tëjee jataay di sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax di ñaan sunu borom may ñu dégg ak topp lépp lu ci dëng rek ci gàttu xam-xam la waaye lépp lu ci jub rek ci baaxu sunu borom la in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sanwal bu sayri xada فكل سراء نور وسرار